haram ci kattanu yàlla da nga seet ba gis ni sëyu Zeyna barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sëy de dina ci am am naa ci yaakaar man samay lii wallaay moo may dundal cee ma yàlla jaaral sëy bi day am an naa fanu Zeyna macha hmm. barakati laa ilaha illallah te sëy bi sëy bu neex lay doon man Selbé Ndom maa ko wax am naa yaakaar na ci yàlla laa wax de hmm. waxuma am naa yaakaar ci congaan wala am naa ci Amadou am naa ci yàlla miy dogal ndax euh, Sadio Mané saajo li lay wax ne ne la Zeyna abete yaata de waaw abete yaata fan-fan séeréer ne a faaxa kooku Youssou Ndour baayam Bouba Ndour baayam Viviane ndeyam bàjjen yi gën a baax mm. ki yore kii seen petit gàlle mhm. ngóone ngóone nduur kooku sama xarit la ndax xam nga li tax mu doon sama xarit mhm. nduur waale mber mbergaan dafa dëggu ba ma ko nee damaa bëgg nga nekk sama staff dafa ne ma xaaral ma laaj mhm. waaye lu ne bis lay xaar dëgg ga ma wax tax na ma gën laa bëgg buuba nduur ñëpp xam nañ ne baax na kon Sadio Mané abbete yaar fan fan alors ma ñëwaat ci actualité bi yow euh, cooli bi mu amee da nga da nga seet ba gis ni sëy bi sëy buy am la wala dañ la ko wonoon bu yàgg ci sa liggéey. ma ne damaa gis yaayu Zeyna muy Viviane nekk ci asamaan si am na sama vidéo bi ma ne sax maanaam fa ma gisoon Pape Cheikh Diallo mi ngi ci sama vidéo yi dinaa ko wër tegaat ko gis naa fa Viviane mu dend xale bu jigéen ma ne ah. <laughs> li tax may wax ci diggante Zeyna Ndour ak Sadio Mané wax nañ ma ko bu yàgg dama noppi ndax man du may dugg ci loo xam ne sama yoon nekku ci ah ma ne loolu de bu amee dina neex ci laa jël man xool macha allah xale bu jigéen bi na bëgg rek te bëgg na macha allah góor ga tam góor gu dëggu la ñoom ñaar ñëpp seeni waajur baax macha allah rafet na trop dëgg yàlla rafet na joueur yi ñëw leen takk ci xale yi sax sénégalais dañoo rafet de taarikàlla laay day de laa macha allah xale sénégal wallaay sénégalais yi dañoo rafet macha allah macha allah daf cat rek wala yéen ñëpp samay doom ngeen barke Seydina Muhammad joueur ñëw leen fii ci xale yu jigéen macha allah ko damay dëgg soxoon bi yow yaa réew damay ña soxoon bi léegi ay jaas ba nga tasa dama lay manqué di oui. God have mercy upon us. <laughs> no. <laughs> asalaamaaleykum sama gaay yi maa leen di jaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné bu baax a baax a baax a baax a baax ak di like vidéo yi di leen like di leen wax ne maa ngi ànd ak Serigne Moustapha Mbacke di sët Serigne Abdoulahan Mbacke ñaan kat ba xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor yàlla may na ko ci tawfeex bu baax a baax a baax ku ci am jafe rek jëlal numéro téléphone boobu noonu nga jokkoo ak moom day ñaan day li saxaar gaay <laughs> yéen ñëpp xam ngeen ne euh, célibataire bi nga xamante ne nii waaw sénégalais yëpp jooy nañ pour mu takk soxna yàlla dogal na ne jël na soxna muy muy muy alaaji Sadio Sadio Mané mu sell mi nga xam ne mën naa ne patrimoine la quoi léegi nag dafa am loo xam ne yéen yéen ma ko a xam mooy Selbé Ndom jamono yi nga xam ne rumeur bi jógoon na fi entre Sadio Mané ak Zeyna Ndour seet ndeketi Selbé Ndom moom ci bës bi lay dox quoi fi mu toll nii affaire njàpp ak Sidi Diop ak Waly soo leen demoon ngeen yéen site internet yi dem leen ngeen posé ko ay question ngeen laaj ko dina leen wax ne leen gisoon na ne njàpp day dem ci Sidi Diop seet No, hmm? salve ndam day xaru ok kon daal yow salbe yow nii nga ko bëgg a jàppoo ko léegi nag dama lay laaj dama lay laaj quoi salve yaa ne woon sëy bi gis nga ko yaa ne woon sëy bi dina am xawma dina am barkeel njaboot bu barkeel affaire yooyu léegi nag dama bëgg nga génn nga waxaat ak sénégalais yi te xam naa sa làmmiñ bi dafa neex te dafa jub mais lii nga wax ni mënoo ko jubandi maanaam xoolal Salvé génnal rek nga nangu voilà loolu moo fi sës quoi yaa day takk Seyna Ndour léegi Sadio takk na xale boo xam ne na kenn xamu ko kenn mus ko romb TikTok wala Instagram xale bu toog si boo jaayam yaa ngi comprendre voilà léegi nag yaa yaa yaa nga fii nga lijjanti ko xam naa ne moom <laughs> man yenn problème yi xaw ma ko am noo koy lijjante c'est ah nañ la nii quoi ah en tout cas yàlla baax na Sadio Mané daal ñun ñu ngi lay ñaanal ah. voilà ñun sénégalais yëpp ñu ngi lay ñaanal sëy bi barkeel ah yàlla def si njaboot bu barkel ñi nga xam ne tamit amaguñ ñu takk quoi ah takk leen ci soxna yi xam ngeen mooy vidéo bu mujj bi nim ko waxee rek nee na ngeen takk Euh, joueurs yi ngeen ñëw jël te xale Sénégal yi yooyu jigéen yi ngeen takk leen parce que dañoo rafet d'accord mais duñu fàtte li nga wax nag il faut nga wax ñu yow li nga gis foo ko gisee da nga doon tëdd di nelaw ga gént ko da nga def say li sa xaar nga gént ko wala da nga gon petaaw nga gént ko wala qu'est-ce passe nan nga def yow ba gis ne Zeyna Ndour waa kii da koo takk Sadio Mané ah man de Selbé Ndom mi jaax man daal maa ngi xaar sa tontu moom bëgg naa nga génn nga wax nga wax ñu yow yow foo gisee woon sëy boobu sëy boobu foo gisee xam nga ne yow xam nga ne yow yow kon yow yow da ngay fontoo nit ñi ah dara gisoo tus laa wax Selbé gisoo dara yàlla mooy gis mooy xool yow fu muy takkee ay sëyam fekk woo nga ñëw fii yow dégg benn buzz buy xew ñu naan Sadio Mané day nga profito ñëw woo say site internet nga ne gis nga ko gisoo dara baax na rek. juróom sukkand eh. téeméeri dërëm. mën naa ne ci Alpha Dakar ba Tomoro téeméeri dërëm mën naa ñaari kilo ceeb téeméer mën naa tey Alpha Thiam. litre diwlin téeméer mën naa ne. waaye ba tey ba ñoo commencé du ma denc leen présenté Serigne Saliou Mbacke borom njurul ku yàgg siraan samay vidéo yàgg ngaa gis mu leen koy présenté muy ko yàlla dénk xam-xam loolu nag macha allah. li nga wax mooy dëgg. kon boog Serigne Saliou Mbacke borom njurul présenté waatal garab gi gars a xam njariñ li. borom njurul cabinet la yoo xam ne am na Dakar Dakar rek la ñu amoon léegi am na mbuur am na Touba ñoo ngi ci sant yàlla. Mm-hmm. garab bi day faj quinze maladie ci na nga ko gisee nii xam nga étagère yi nga ko fekk. doo gis benn yoon ñu dugal ko ci frigo. du xeeñ te boo ko tegoon quatre mois du yàqu. Mm-hmm. quinze maladies lay dindi. muy ndoxam siti hémorroïde ballonnement bëri lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie sinusite fatiguement général diabète tension mm-hmm. perte balance règle douloureuse limpissage sexuel da koy dindi ba mu jeex tàkk tàkk seeram te moom boo koy naan da ngay gis résultat te doo si jël lu bëri macha allah defe naa ne ñoo ko déggandoo Serigne Saliou Mbacke borom njurul moo nekk noonu garab gi nag mi ngi tudd borom njurul muy garab gi gaawal nga gaaw nga contacté ci numéro téléphone yi ma leen defal ci suuf képp koo xam ne bëgg nga ci garab gi gaawal nga gaaw contacter cabinet bi la gën a jege boo ko defee incha allahu rabbi doo ko réccu aussi képp koo xam ne bëgg nga mu seetal la defal la ay ñaan xam-xam bi sell na te macha allah li ma gën a neex ci moom léppam alxuraan la waaw seet moom wax dëgg yàlla yàlla may nañu ci seet nag ñu ngi koy defee ci xilmu nujum muy xam-xamu biddiw bu dee listixaar ñu ngi koy defee ci alxuraan ñun dañ lay wax lépp loo xam ne weesu na ak li nga xam ne yaa ngi koy dund nii te xam nga ni lii moom mi ngi lay arrivé moo xam métti na moo xam méttiwut yaa ngi koy dund nii ak li nga xam ne ñëwagul loolu na xëy na dund goo ko dana am signe yooyu lu koy wan dana la wax signe yooyu wax la sabab bi lépp lu la dal wax la fi ngay teg sa tànk wax la li nga xam ne moo lay yàqal ba noppi wax la sarax ya li nga xam ne boo ko defee rek mu dañ macha allah ñoo ko déggandoo gars yi Serigne Saliou borom julul moo nekk noonu xam-xam bi set na sel na te léppam alxuraan la kon boog gaaw leen gaaw ngeen contacté ko Serigne Saliou Mbacke borom julul kontaan naa ci li ngay saafara jafe-jafe askan wi voilà sama gars yi mu ngi noonu ah, kooku mooy Serigne Saliou Mbacke borom julul kenn dootu leen ko muy koo xam ne yaakaar naa ne liggéeyam ci Sénégal ñëpp gis nañ ko moo xam lépp loo xam ne wàllum jàngoro la joo xam ne nee na lim na ko ci ay jàngoro yoo xam ne mooy si borom jurul boobu rek incha allahu rabbi ku ci jokkoog moom sa aajo dina faju mais day ñaan day listixaar mais tamit am na fasu amit daal boo xam ne moo koy def ci loxo boppam képp ku jokkoog moom incha allahu rabbi sa aajo dina faju kon jël leen numéro téléphone yi mu ngi noon ci suuf